asalaamaaleykum Sénégal sénégalais fu ngeen toll ci àdduna Khadim Gueye fekk na ne fa ngeen toog fii ci Ndar Géej di leen ziyaare di leen jox seen wàccuwaay di leen war nag suñu wuuteeg espèce activiste yi tapet yi nga xamne ci États-Unis ci France la ñuy nekk di dem leen xeex dem leen rente gis ngeen tunkara fan yi mel ne ku adunam tukki gis ngeen ku mel ne ñoom axenato nag ñoom gaayam yooyu cette racaille là de merde ah toog naan seen doom yi na ngeen ñëw comme ni ko seen ku sell ki defe fii tapet bi nga xam ne si bu micro yi taxawee wala mu nekk ci meeting rek ah lamiñ bu bi ay gatsa sa gàtt duñ ko may dara pale nangam te buy dem pale doon ko gis doon gis domam doon gis ay ay jabar bu doon waaw bu dee ca mbedd ma la gis ngeen ko oto bi dëgër di woo ay bileeg ay waaleeg ku ne mu woo la tàppet boo xam dafa doon génn dëggal boppam mais bu nekkee ci meeting ba moom c'est le plus féroce le plus guerrier des guerriers mais bokkat boo xam ne ah dina xam ne wan nañ ko bërki demb mbir mu demee tey nag benn ci dofam yooyu laa bëgg àndal tuuti ngeen déglu ko muy axire ton ngeen déglu ko koo con boo xam ne c'est le pire des cons waxuma ñi ànd ak ñi contre Sonko ñu mel ne man ah ak ku ànd ak Macky Sall ah, mais moom mi ànd ak sonk waa sonk yi ni mu leen jàppee des cons moom laa bëgg accompagner ci video bi tuuti am lu ma ci wax du ma ko àggale sax parce que dof la boo xam ne si ah. dafa ne ne moom mooy nit jàpp leen yéen waa sonk yi ngeen nekk ay cons di leen traité de golo de n'importe quoi ah ngeen nangu ko mel ne moom dong moom moo am xam-xam ci loolu seen Ousmane sonk boobu sagaru nit boobu sax respecté wu ko ñu déglu ak wax ne kon ñi ngi tàmbalee suñu wax ci li nga xam ne gis naa tey ay patriotes yu bari ci réseau yi kenn ku ci nekk di ci wax uh-huh. te muy li xewoon euh, ci le 16 bi di alxamis uh-huh. toj li ñu toj oto président génne ko yóbbu ak la ca xew yépp uh-huh. mu mel ne mu demee ci meeting Sonko lay wax anniversaire pur bi dafa wax wax joo xam ne dafa mel ne daf ne moom ñoom dañu koo génne yóbbu ko këram ngir sauver ko. Uh-huh. ci loo xam ne dafa naroon a dal ci kawam te mooy ay nervi Macky Sall yu dafa naroon dal ci kawam. nervi Macky Sall. wax nag. waa bépp dafa am ñoo xam ne comme d'habitude ni ma koy waxee ñoom dañuy dégg mais du ñu dégg dañuy déglu mais duñu dégg. Uh-huh. en général dañu problème dégg-dégg. dégg dara mi rek président Ousmane Sonko having issues with the webinars, ah, wasting time with attendees? If so, you need StreamYard. mu duñ jël seen xel. bu jëlee ci benn vidéo di ko déglu dañuy déglu ci parax parax ak ci yëg-yëg ak yàkkam ci amuñu dal. Uh-huh. duñu faram fàccee dara ndax seen xel yi ñu ci ëpp seen xel yi dafa lag dafa dafa dafa nagam. mooy yéen yéen kooy yéen du du seen défaut ndax. Uh-huh. culture la ci réew mi. Uh-huh. kenn du fi tàggat am xel kenn du fi suuxat am xel. danga fi dégg lu ne. lu ne dañ ko dégg ci réew mi di ko duufal di ko màggal ba mu des màggal am xel suuxat xel amul fenn ci réew mi fu ñu suuxatee am xel fexe ba xel mi nekk xel mu ñor xel mu fendi xel muy mën a gëstu xel muy xelli kon daanaka ñi ëpp ci réew mi seen xel yi dañoo judd rek xel yi xel yi lajji xel dañoo lot xel dañoo loof comme ni ko Cheikh Anta doon waxee ndax duñu am benn taxawaay ki lay jur wala say mbokk amu ci kenn koo xam ne dana stimuler sa ah. intelligence comme ni ko nasaraan yi defee tubaab bi ah, ah. amuñu culture de stimulation de nos intelligences au contraire culture bi ñu am mooy la culture de l'assujettissement la culture de la soumission la culture de kilifa la culture de da nga jël sa xel ni sa lépp sa jëm nga jox ko benn jëmm joo xam ne daf lay wóor ne kii amul loo amul xamul loo xamul mënul loo mënul nga jox ko sa lépp mu di la xalaatal di la def loo bàyyi loo jël sama xel nag jël brique teg ko ci kaw loolu moo tax suñu xel yi ràgg xel yi xel yi picc la day tëbaka dal fu mu gis pepp daanu cofa cofa cofa cof dem dugg ci kaafam tëdd comme ganaar xel yi xelu ganaar la loolu nag aada ju yàgg ci réew mi la ndax kilifteef gi ñu ci wax ci diw day topp diw nit diw day am kilifa diw day li kilifa diw gis nga kilifa gone moo koy am ku amagul xel mooy am mooy nekk mooy am kilifa waaye nit bu demee ba nekk mu kallak ba amum xelam mooy kilifa boppam waaye réew mi da ngay dem ba am cent ans ne di woy sama kilifa kilifa googu nag nekkul ci jëmm ji nit ki la def ci mu xel la yii def sama xel lay jël toog ci xel yooyu ñu këf fukk. voilà kooku mooy Akhenaton dégg ngeen ko yéen waa Sonko yi je pense que tellement bêtes que gi traité na leen ko du man mais bu leen di dégg dégg boobu mu leen wax da ngeen am dégg-dégg vous êtes tellement bêtes que Ousmane Sonko discours am dafa fort aussi fort. que vous n'êtes même pas capable de comprendre vous me waxe quoi waaw mu tourné ko même mom mi koy wax mo que vous nek parce que Ousmane Sonko discours am lu lu am neku lu neku ginar yi wax ak yi daan ba petax yooyu ñoo ko ëpp xel donc waxee Ousmane Sonko def naa amul luñ ciy étudier luñ soxla ay diplôme wala dara pour mën ko comprendre donc lui-même il est plus pire que vous il plus bête que vous loolu wax na leen vous êtes bête mais nee leen ko moom moo leen gën a bête parce que moom bu amee lu muy lecture bu muy am ci bu Ousmane Sonko waxee Ousmane Sonko <laughs> ça veut dire ne ah moom bii moom ah ganaar yi ak petax ya Ousmane Sonko doon sàcc di jaay 300 ñom ñoy yam quoi donc dama bëgg na ngeen xol ngeen wax ma ban rapport la am ci kat bi nafek bi Ousmane Sonko buñ dem jenné ci otom toj bëram yóbbu ko delloo ko ba kërëm ban rapport la am ak kilifa diiné nga xamné mom mom mom mo koy ray mom moy mbam mo xamné ne wu la wacc Sénégal wu la jégg Sénégal comme ñom Tunkara tapeti clavier yooyu ne ci gënaaw di yuuxu di xaru bo leen gisé xex bi ñun dañuy xex xeexu maamam ak ay Mollah Morgan yoo xam ne ña xeex sax ña xam ne dañoo nekk devant laa scène boo yoo di jéngu-jéngulu ñu ngi naan leen noonu da ngeen war a dem attaqué mais kan na ci Canada la attaqué kan na ca France naan la attaqué wala New York xam nga ne kooku moo leen gën a ñàkk jom ay tappet yu amul resu mooy dooma xaraam yi laa la wax waaw déggal leen ma waa ji lu kilifa diine war a dugg sax dañ leen fu dugal Ousmane Sonko muñ dajji otom muy jaay géree dem ne fii lay aw ñu ne doo fa aw te tàppet la boo xam ne lu mu leen wax ne du ko def à la da koy def dégg ngeen ko ci oto ba tegal naa leen ko sama vidéo yee ma nga naan commissaire ba ah, di woo ay waaleeg ay xaw ma jimmeeg ku ne mu woo la ah. naan ko du ma wàcc oto bi di yéeg ci benn te dañu ñëw toj beer bi génnee ko wàccee ko mu dugg par force ne pat tàppet yi borom gatsa gatsa yi kenn ñemewul a ŋaañ ñu yóbbu ko ba këram comme sax bu ñuy servir dem na ko jajax ci këram mu wàcc naan tey ji te day ko dégg ah, ñii dañ ko doon dem di ko sobe ci te ñooñu ne ko jaaral fi mu dafa jaar ñu ne ko faxat ne ko sapet dugal ko ci oto par force tàppet yi y compris ay garde corps am yoo xam ña nga woon ca gannaaw xamu la ko garde corps yi jariñ lan la ko garde corps am yi di jariñ laa xamul ay ponkal yu xaw ma ay limousine rek ay BMW yu kenn xamul ay ponkal yoo xam ne si gaa yu mel ni ñoo ñëw ñu former leen gaay naa tek len ci yoon verre bi sax niñ ko toje rapidement gis ngeen français sax won nañ len ben vidéo bu circulé ah que ne bo ñoy def liñ la wax dañ koy def ñoom wu ay Ousmane Sonko fi nek ay président groupe WhatsApp ak di n'importe quoi liñ la wax dañ koy def te leçon de vie lañ koy jox xamal nañ ko gis nga buñ bis buñ la woyé tribunal nga ne fi naan da ngay woo sénégal yi ñëw nii la ñuy ñëw seppi sa maam yeew la ba nga dëgg rek yóbbu la bu wàccu lañ ci oto dañ koy mënata dugal ko yóbbu par force te tàppet borom gatsa gatsa yi muut la ñuy def ay meeting di yuuxu dafa yomb voilà wala caméra yi tàkk ngay yuuxu waaye keroog ci banque boobu boo leen xooloon doyal da ko xepp laa la wax waaw pour wan leen ne tàppet bi mooy ñëw naan sa doom ah, sa yaay ah, ku dee sa yaay juraat wam daay mënatul jur jabaram yee mu yor na leen jël di leen fur yi ñoom ñuy jur ay doom mu ñëw di dee mais seeni doom ñoom duñ dee juróomi jabar ñett yam fase ak ñaar yim yor seeni doom ndax kenn ñëw na fa lu tax du leen yabal ñu dee après ñoom juraatal ko mais yow mi way xool yow la sa ndey war a dem juraat def 15 nga am fukki at fukki at ak ñaar fukki at ak ñett mu def lu ne ci yow benn sagaru bu tekkiwul dara bi doon leen wax contradiction yi keneen boo nekkee xale da nga war a xalaat nooy liggéey dem leen bàyyi def leen taw tey ji moo ñëwaat lekk li mu waxoon ñëw teg leen ko mbaam yu mel ne ton bi ñëw di ko jàppale jox ay Ousmane Tounkara ak say vorien la xale yeewu leen waaw keroog dafa rus dañ ko troxal te leçon lañ ko jox nekk xoolal lii message la bu beneen yoon buñ la sawaay jaaral fii na nga fa jaar bu ñu bëggoon nga bët waxuma la bi ñu bët suuf jaar ko da fa aw par force sa garde corps yi ku ci ñaagoon dootu ko defati ay limousine ak ñoom ñëpp la ñuy taxañ ñi ils sont pour teg yoon ci yoon parce que mun leen taaw ne waa ji dafa am droit libre di circuler nu ko neexee ci senegal kenn terewu ko ko mais dafa am yeneen sénégalais yoo xam dañuy yeewu seen kër yi am droit circuler il ne rien dem na wuy ji ñibbiwul këram taxawaal ju mbedd yi pour jaay xoo booy yi génn ñu bloqué mais ki dem di jaay ki dem di xëy ji biroom ki dem war a ubbi magasin ki dem war a ubbi boutique am mais dajale ay agresseur ay sàcc yoo xam ne si ñoo ne ci gannaaw comme li mu doon sàcc ay petax nga xam ne bu problème amee ñu ñëw sàcc si butigu jàmbur yi ñooñu ñii dañuy ñëw taxañ la yeew la ndànk ne la ciix ciix ji la yi wax dugal la ci oto bi yóbbul ba sa kër nga ne muut laa la wax waaw mu ñëw naan non sama sécurité yow Macky Sall dina jël ay nervi du nee na ay nervi ay milisu Macky Sall lañ gendarme yek ñoy wa biib ak GNG euh, yi ñoom ñëpp ci ordre Macky Sall la ñuy mais lutax tax Macky di len fay ba pare yow nga albu nit ñi ñëw di sauver sa vie yow kon lan lay fay ay ay ay milice doy bu dé pour ray la woon dinaa len fay ba pare pour ya ñoom ñu ñëw di sauver sa vie motax gis nga sawaay waji day jël di dox ci mayenu doomu adamay ngeen nek ay golo comme ne ko axena ton sagaram di bi di waxe quoi ginaar sax bu leen ëpp xel waaw doon na jaay géree ci oto bi yow boo xam ne dañ lay sauver est doon na fa nekk naan bul wàcc bili ah waali de bul ubbi bunt bi dañ sinon dañ koy kale ñu bël seen formation lu leen tey sa yambar yooyu di la wër cinquante yu toll na ay Double Less ak ay montagne bu ñaangoon ñu taxañ leen cinq minutes yóbbu leen wala doo dara yaa ngi fay ay gaay cinquante nit yoo xam ne boo ci boolee quelques boy de douze ans ñu naan xoolom mbooloo mi topp Ousmane Sonko doo coco wan nañ la ko wan nañ la la bis buñ ko euh, Adji bu ñu la woowee te sénégalais yi da ngeen xam ne ah seen recours boobu ñu def woon rejeté na ko day dem wuy bi par force bu taxaw fii ne golo yooyu la yaakaar hmm? daañ dem oto bip bii mooy dem dajj buntu këram waxumu la verre bi ah buntu gàlle bi la ñuy teg ci suuf dem ne ko ceex yeew ko ba mu mel ne xar yóbbu ko bu devant le juge bu dee ndamam bu dee bëgg ngeen ko ne ko nda dem wuy ji ndànk dem setal daram ci kanamu aj Sarr après muy doog a ñëw Ousmane Sonko Sénégal soxlawul la kilifa diine sax sonn nañ gis nga ñëpp génn nañ ndax fitna bii li nga bëgg indi Sénégal diine ji fa yor tarixa yi yor yor sa maami maami maami maam mënuñu koo dindi sa dix génération mënuñu ko dindi yaag sa Pastef waaw Touba lu ñaaw la fa gis ngeen lam fa def te gëmul tuubaa gëmul dara dem ca Baye Fall ya bëgg leen a jaxase lu nekk mu di ko def ngir seen projet de bu salte boobu Sénégal ñu fi ñaan dafa am solo waaw yéen tàppet yi ne ci clavier yi nag naan ay xale yi dem leen xeex yi ñëw leen ndayam ngeen ñëw jiite xale yooyu ak seen i jabar seen i doom ay tunkar ak ay Akhenaton ay Mola Morgan c'est vaurien la sagaru nit yooyu ne fee di yuuxu doomu jàmbur ñu dem seen tàppet bi ngeen jiital naan président groupe whatsapp la sax ah fu ko policiers yi jaar looy jaar la fa lay aw buntu këram dañ koy tëj mu ñëw di yalwaan pour ñu bàyyi doom mu jàngi jël sa doom ne ko na dem dee ndax gatsa gatsa ah ku sa yaay ku dee sa yaay jur keneen jabaram yooyu nañ jural maamam doomam yooyu nañ dem buñ dee jabaram yooyu juraat ñeneen ñu xool bu wooyee sama doom wala doomu kenn ñu mën a dem déglu mbaam mi mu góon ne jox ko ay nit ñoo xam ne jànguñu jongu ñu xamuñu dara ñu gidal leen naan ñoom ñooy kilifa yi te xamuñu loo xamul mënuñu loo amuñu loo ay aada ju fi sax doon na ko seeni i baay ñu doon doomi jàmbur yeeg bàyyi jàmbur yi këf seen xel yi toog ci ba xel yi ràgg ràgg ràgg ba booy wax ñu rap rap yi boo waxee duñ la dégg kenn mënu cee dégg peu de sénégal ñu am capacité d'écoute et d'analyse peu ñi ci des ñëpp ay làppato lañ boo waxee ñoom boo waxee a ñu wax bee ñoom fu ñuy subhanallah loolu nag ay làppato yéen moom mooy intellectuel bi quoi sagaru nit bi tapet bi réew mi dafa am culture ay aada yu bari yoo xam ne il faut ñu jëlee ko dajj ko ca sànni ko ca àll bi yow lañ war a sànni ca xaj kilifteef kilifteef moom mooy ak njaam rek foo ko dégg mooy ak njaam kilifteef moom mooy mooy tënk sa bopp ci gétt di xaar suba la tabaski ñu tinc la tër la reen di loolu mooy kilifteef sëñ Muntaxa lañ jëm xalif jëm xalif général Laayeen lañ jëm souhaital yi am ay jëmtukaay yëkkati ca kaw fan yi ñu ngi dee ndax mbooloo mi nga xam ne si ñoo topp ci diine ji ñu yor seeni maami maam sax mënuñu ko fi dindi dañ ko war di suuxat di ko tàggat di ko di ko di ko di ko tàggat di ko suuxat di ko stimuler comme ni ko tubaab di waxee pour que xel mi uh-huh. nekk sam xel uh-huh. nekk sam koom koom pour que xel mi nekk sam koom xel mi nekk sa doole xel xel dafa ñaw xel moo ëpp bomb xel moo gën a garaaw lépp uh-huh. xel mu ñaw laa wax nag waaye waaye waxuma xel mu làppatu comme sa xel bi yow xelum ganaar nga yor làppatoo sax gën sa maam xaj bi nga doon teel mu ñëw seetaan dañ kumpa waaye du ca jëlee dara loo xam ne lu koy jëriñ la ndax xel ma ca boppam ba mu juddoo la ñàkk xel ma ndax ba mu juddoo lañ ko jox sëriñ bi ko kenn koo xam ne danañ mooy kilifaam gone dañ ko yilif ndax amagulum xel ci oto sonko sagar nit boobu lu ci indi sëriñ bi ñu koy jox xoolal seen xeex ñoom lan la kenn bu bon bu kenn koo xam ne amuloo am xel du mën a togg jëf yàlla amul kenn koo xam ne ëllëg dina ko àtte ndeyam kooko dafa am xel tant que amoo xel yàlla du la togg jëf du la jox amul charia beeg diina jéeg li yàlla seen tànn yëpp te ni julleeg yëpp yàlla du ko teg benn nit boo xam ne amul xel benn yàlla du ko teg kenn koo xam ne nekkoo mu kallaf nekkoo majeur kon yow yàlla du la teg dara am at xel boobu boo ko amee yàlla dafa jàpp ne at yi nag képp koo am nag sam xel dikk na nag sam xel ñëw na loolee nag moo tax yàlla foofu lay commencé tàmbali di bind bàkkaar ak di bind ay tuyaab baax na loolee. Uh-huh. dégguñu diine ji moo tax ñu lagg ñun ñëpp. ba uh-huh. xel yi raag comme ni ko Cheikh Anta Diop waxee xel yi wayal yi xel yi parce que xel yi dañ koy tënk. Uh-huh. di ko jox ay diw ay sëriñ ak ay maraab. waaw ñu ne ñoom la ñuy dénk ñoom la ñuy dénk xel yi ñoom. arkasa ñoo yor askan wi ay sagaru sell ku njaalookat bi duñ dara. moo tax il faut ngeen ko fu mos a doon ci Sénégal waaw. sëriñ si lañ gëm. Cheikh Bamba El Hadj Malick uh-huh. Baye Laay Baye Niass yéen lañ jëm ci xel di ci insisté nii fi ma jëm moo tax mm-hmm. parce damay gis même ñi ànd ak Ousmane Sonko ñi ànd ak Ousmane Sonko amuñu xel waay ay koo lañ la ci Ousmane Sonko mag la ñi ko a ñàkk xel gën a nekk koo ko ñooñu ne ko xee noo tudd fàttali xamul nu mu tudd kooku ne ñaata at nga am day wokk dookam ne xanaa xanaa xanaa parce xamul sax ñaata at la am xamul fu mu jógee xam moom moom riirandoo rek coowlee ko ci neex ak sonko sonko bi ku ko sonko sànku geeg way euh, euh, bi coow li uh-huh. bruit bi moom moom moo ko yóbbaale waaye moom xam sa liy def axana ah, toog wax de film cinéma la waaw ñi ci bari ñi ngi topp Ousmane que sénégalais am xamuñu loisir uh-huh. sénégalais duñ dem vacances sénégalais yi xamuñu loisir sénégalais duñ dem cinéma duñ dem théâtre sénégalais yi ñu ci bari du xam nga du ñu voyager sénégalais yi amuñu loisir oh. sénégalais ñi ci am liggéey bu ñu liggéey ñi ngi seen biir yi toog oh. ñi ci amul liggéey bu ñu xëyee oh. dem fortaatu ju comme ay ganaar lekk nekk ci mbedd yi toog bu guddee ñu xam nga voilà abu benn tubéy sol ko jéem a xool xëjaka ah. bi xool dañu koy jéem a le ah. xam nga bu làmb di ñëwee ñu dem bu Youssou Ndour ak sekk Seck ñëwee ñu dem ah. bu ñu amee paas buñ ci paree fa lañ ci amuñu loisir Sénégal amul loisir Sénégal amul piscine boo xam ne war ngeen mën dem defi natation. Sénégal amul ay dojo yoo xam ne war ngeen mën dem defi karaté. Mmh. defi judo. Mmh. def ay sport de loisir. Mmh. def ay natation. dem Sénégal amul cinéma amul ay théâtre. cinéma Sénégal amul amul amul. Euh, du ngeen dem restaurant. génn entre amis dem toog restaurant lekk waxtaan diisoo xàqataay ree ku nekk ñibbi sa kër yooyu yëpp ay plaisir la. yooyu yëpp ay jëmtuwaay yoo xam ne amul ci réew mi. amul maanaam seen maanaam da ngeen di ennuyé wu da ngeen di souffrir maanaam yow loolu xamu leen ko moo tax bu Sonko tak voilà dégg ngeen ko Sénégal amul loisir amul ay cinéma amul ay restaurant amul ay piscine amul ay salle de karaté waa ji génnoon na bu yàggul seen ku sell ki ki ngeen di wooy ku sell ki njaalookat bi gis ngeen ko mu génn ak benn mosam di den ay xawma kenn voodoo la doon def xaw ma la mu doon def ci salle la ko jàngee fii de kon nag kàcci ga yi ñoo fii salle de sport yi ñoo ngi ci région yeeg ci dëkk yi gën a ndaw sax bu ne am na fa xam nga li ñoom Akhenaton ak ñoom Tounkara ak sagaru nit yi lan mooy seen problème mooy vingt ans taxawuñ Sénégal moo tax bu ngeen gisee ñuy critiquer Macky Sall tey ñoom parce que xamuñu ban réalité Sénégal bi ñu Sénégal bi ñu fi bàyyi woon ak Sénégalu tey bii moom lii muy wax nii dëkk la ci booma te da ngeen ko war a gëm parce que ba muy jóge Sénégal yooyu yëpp amu fi woon quoi wala du woon loo xam ne lu siiw la waaw. mais xam ngeen ku dégg wax yi xam ne kii di traité waxuma la am xel mais waa sonk di leen traité de ignorant de ñàkk xel de ay xelu ganaar kii dafa ngeen lan lañ ko war a traité moom quoi kii bu newoon cëpp Sénégal tey day saaga maam maami Sonko maa ngi may yow gaañ dag ma nax mais ndekete Sénégal soppeeku na nii Macky Sall soppi na Sénégal nii mooy genre yi bu ñëwee changé.

mais kii mooy tàppet boo xam ne nee na ñi ñëpp c'est des ignorants mais moom mi nga xam ne mooy intellect bi tàppet la boo xam ne ci ab lëndëm lay nekk di wax baatam mel na ganaar bu ñuy bëgg a rey quoi boo ko dégg xam ne seer bu jóge ca village ba la ñëw taxaw di jaay intellectuel quoi xoolal yim ne amul Sénégal yëpp yow mooy déglu yenn dégg seen nopp bopp xaadu fenn yéen a ngi koy dund ku fi soxla judo karaté lu la bëgg piscine yi ñoo ngi fu nekk piscine olympique yi di n'importe quoi def nañ ko Sénégal mais waa xamagul woon loolu quoi pour moom Sénégal bi golo yi doon yéeg ci garab yi maamam yi ni ñu doon def quoi nekk ay nopp si jaboot ah di yéeg di wàcc loolu la defe ne loolu lay dund ba léegi parce que France bee mu nekk ah ñun Europe lañu nekk dañuy dem France di dem fu nekk fuñ tourné ci Europe moom ñu jaaru fa xam réalité bu nekk Hein? gis la fa Sénégal moo ñu opinion bi Sénégal gis ton excellence lu muy liggéey ci réew mi hein? ak ni mu donc ans fi mënuñu bokk donc moom bala muy accuser d'ignorant hein? moom mooy ignorant ignorant vaurien là déglu leen ko ba am na benn part boo xam ne wax na fa vérité Ousmane Sonko mi mooy lu ma doon wax ci commencement ba ñi nga xam ne ñooy ay nervi yoo xam ne Macky Sall leen jël ay milis muy waa BIP yooyu ñu ne ay corps la dégg naa sax ñu ne ay tubaab lañ ci dugal ay journaliste dem ba ñëw di gëmloo Sénégalais yi que ne dañoo jël ay tubaab dugal leen ci koor boobu pour ñu faagagal Ousmane Sonko moom il va vous la question Ousmane Sonko lañ koy doyee ba di ko rey wala dañ koy faagagal ak pour lan ban motif. du Xaadim Gueye moo ko laaj waaju moo leen koy laaj ñëpp ñëw parce que da ngeen a am temps moo tax bu ñuy meeting yi meeting yi fees dell meeting yi fees dell ngeen gis lan ñu bare ci tàcc naan mbooloo yi ku nekk naan wëy mobilisation mobilisation Macky Sall ak opposition bi yem ñëpp di bàkk uh-huh. man su ma xoolee meeting yi bu Sonko bu pur rek bu Macky Sall yaa ci yem meeting yi yëpp bu ma uh-huh. xool damay tiit uh-huh. xam nga lu tax may tiit ndax damay gis ne ñu nekk ci meeting bi quatre-vingt-dix pour cent yëpp amuñu xëy dañoo am jot ku woote ñu loolu nag kenn du ko wax te loolu mooy li gën a garaaw maanaam a xam jot da a deful dara dara dara moo tax. moo tax Sall fees la ñëpp mu jigi léegi sax ay dañ leen di duy ci di leen fay waa Macky Sall moom day fay moom day génne deux cent millions. kooku moom mooy neexal fii nag bëgg na neexal waa Sonko yi parce que xam dañuy saaga ma daañ ko lijjanti ñoom parce que ñoom dañuy saagante Sonko boo waxee lu ko arrangé surtout ñoom ñuy àndoon ak moom ku ci rëcc ba critiquer lu arrangé wul Sonko dootoo ko defati ñun sax tàmm nañ ko ñoom ba ñun lijjantee duñ ñu dañ ñu ko may man booy Song yow grand yow waxal loolu neex quoi yow di leen déglu dañ ñu sympa sax mais ñoom ñi duñu leen may dara waa jii ma nga naan waa Macky Sall yi dañ leen di fay pour ñëw ci meeting yi ñoom ñoo affiché fii semaine yee ku fi def ay Kopar Express ak tout oto yi trois mille cinq cent kenn ku yéeg ñu indil la tey nee na waa Macky Sall ñoom ñoo koy def donc ku dem ci meetingu Macky Sall daal c'est naturel comme seen fenkat bi seen kàccikat bi seen njaalookat bi seen sagaru président wa groupe whatsapp boobu gëm loo ko ne moom fu mu woote dañ fu wuyu bari ki démb manifestation pure la ne woon benn militant nekku fa ah mais bëgg ko def mbooloo boppam dafa nga ne waa pure yooyu dof nañ ba nga dem sa def sa njaaloo aji saar woo nga war a dem leerali ñooñu sax dañoo bëgg a xam nu mu demee ñoom ñooy ñëw di ray seen bopp ci mbedd mi duñ ko def de bu leen Moustapha Sy wooyee ñu dem bu leen capitaine wooyee ñu dem waaye yow nga woo leen ñu dem di rey ndax benn kat def naa loolu duñ ko def yaa ngi ndax sa bopp mais occasion bu nekk waaj da koy exploité waaw taxawaalu ci mbedd yi lambar lambar yi yow ñoom xalifa Sall gars yi ñoo ngi dem ñoom bugaan déggatu leen fenn gars yi ñoo ngi ci àll bi yi di campagne mais waji ji mbeddu Dakar yi lay nek di lambar lambar yi hein ah, créer affaire yi pour que réseaux sociaux yi ñu wax ci mom toj nañ véram japp nañ ko fi mu genn nan dañ mu bëggon ray dañ mu sobi fi affaire yoy au lieu mu dem campagne 2024 nag mu rasé ko comme tari mu am lu muy wax Macky Sall waru bok dugg na fi genn mais Macky Sall yéen nee ngeen kenn bëggatu ko dañuy fay nit ñi pour ñëw seetaan ci ko mais 2024 nee ko na ñëw sëñ bi ngeen troxal ko bu dé am ngeen force bobu c'est où le problème ba kenn ku ne di rey boppam naan troisième mandat non man dinaa bokk dégg naa Barthélémy Dias nañu négocier Macky Sall Khalifa Sall nañu négocier mais Macky Sall du bokk pourquoi Khalifa war a bokk keneen bokk ngeen ñëw négocier Macky Sall mu ne ko yow doo bokk ñun ngay négocier pour ñu bokk mais na ngeen kenn bëggatu ko kooku kay moo gën a yomb ngeen humilier ko def leen li ñu def Ablaye Wade en 2012 ngeen voter ñepp contre Macky bu dé am ngeen pouvoir bo bu dé li ngeen wax dëgg la ci yeen mais bu ngeen bëggee eh, jël sen euh campagne yëpp tek ko ci 3e mandat Macky dugg fi am koku moy xam ngeen ne li ngeen di wax ay fen la ni ngeen di le sénégalais yi comme ni nga ko defee yow Ousmane Sonko Barthélemy Diaz def ko que ne Macky Sall am na ci droit comme ni ngeen doon wax yeen politiciens en 2012 seen mbir dafa jaxlé xamone ngeen ne am na ci droit. duñ fi toog nag déglu deux mille vingt cinq ay Barthélémy Dias naan xamoon nañ ne Macky amoon na ci droit waaye duñ ko ko may déedéet dem su la le terrain Macky ubbil leen ngeen ubbil ko yéen ñëpp ngeen bokk ku mën sa moroom duma ngeen bëre te bàyyi seen caaxaan yi waaw. waa ji déglu leen ko Sonko ak fanam yi mi ngi ciy bëgg a wedd gis nga gaayam sax dañoo sonn léegi. waaye Yewwi Askan bi gis nga yëfu goloom yi gisatoo ci ay Khalifa gisatoo ci ay Bart gisatoo ci ay Déthié gisatoo ci ay ay dara ñoom ñëpp bàyyi nañ ko muy yagar yagar ji mbedd sagaru garde corps tàppetam yooyu muy àndal yaa ñàkk jom Ousmane Sow day ragale kaar yi ku dugg te junni ku dugg junni léegi léegi dañ ne léegi esclavage la waa waa mag yi waa Sonko yi noonu gratis la yow quoi ñu dugal ni ci oto yi comme ay xar <laughs> bu ñu paree ñu tàcc bu ñu paree ñu dugal ci xar yi yóbbu seen te lii lépp dafa am nekk ci ginnaaw. ñun ñu ne ngeen ciy xool bàkkoo bu tëkk man li may xool mooy lii danger bu rëy la. Mhm. nit ñi nga xam ne di nelaw ko yeewu. Mhm. ñu ñëw fees dell dell dell dell dell mhm. ñëpp kontaan d' accord capacité de mobilisation waaye derrière cette capacité heure boo xam ne heure yi ñu def. jour yi ñu def ay heure xam ne tey jii bu ñëpp amoonum xëy tey jii boo wootee meeting doo gis kenn waaye comme nit ñi def ñu dara meeting ñëpp fees xam nga wax ne waa ji ginaar sax moo ëpp xel moom mii jëpp waa Sonko yi traité leen de con de cerveau de ganaar et du n'importe quoi France boobu mu nekk gis ngeen campagne ba nu doon demee est-ce que ñooñu amuñu liggéey da ngeen ne France Europe États-Unis ñëpp am liggéey mais gis ngeen mobilisation yi ñuy def en Europe bu élection jub see élection locale kese laa la wax gi mobilisation pour vous dire que ce sagaru nit yu melni di len gëm lo yenni comme affaire dans daal Sénégal qu'est-ce la am bu Sonko dajalee fee mën na fen ay fenam nee na moom ñëpp gratuit dañ ko bëgg Macky Sall ay mbolo bu double ñew ñu ne dañ leen fay d'accord waye mobilisation ni mi amee fi lay amee fu ne ci aduna bi all round the world y compris France bobu mu nek kat ci kat bi mais sen manipulation dañ ko tam ba dañ leen di gëmloo ko Sénégal rek ngay gis li te gis nga rassemblement du dara xam nga lu am solo sama vidéo bi ma monté dem bi ngeen sétane gis ngeen ko ci tegal naa leen ay xalé yu ndaw des jeunes kenn ku nek wan la carte carte d'identité né la man Macky Sall lay lañ gëm xam nga lu am solo ci bureau de vote ba nga duggal ko fa parce que boy yu am 12 ans xool leen ñen Vous koy dem leen ci image yi ñoo ngi ci YouTube bi ngeen ko 11 ans 12 ans xamuñu luy élection xamaguñ luy vote mënuñoo voter ne rien doy rek Sonko Sonko Sonko na ko waaw gis gis la moitié sax ah, mais ils sont majeurs dañuy jël seen temps jël seen carte d'identité bu vote jotee ñu dem voté xam nga fu leen Macky di duma foofu la li leen di ay sàcc sàcc élection mënul am Macky Sall bu doon sàcc élection ah, Ahmed Aïdara moom dana gañ rakam bu doon mënoon nañ ko sàcc élection yi ñuy bàkkoo mu jàll ci député yi est que ñoom doon nañ am quatre-vingts députés bu doon mun nañ truquer ay élection mais gis nga fu ñu leen koy jaar bu buñ leen dumaa vrai électeurs yi ñëw voté ay yuuxukat yi dajale ay mbalit ay booyu 12 ans ay taalibe du n'importe quoi ñu wër ko di yuuxu sonk sonk mu def moo rey bukki bi bu ñu demee di voté ji nag ah bu doon 100 la 10 ñoo cay voté ñee nag bu doon 200 la 198 la ñu dem voté foofu lañ leen dumaa ñoo ne yoo sàcc loolu du jàll ngay nag bàyyi leen xel ci li ma leen wax ngeen xool ko waa ñu déglu dof bi loolu lu garaaw la loo ndax xel yi ñoo way mhm. xel yi nañ leen a tënk jox leen ay sëriñ yoo xam ne amuñu eh, xel. sëriñ seen ko yaram jàng ñu jox leen lépp. il a des problèmes avec nos marabouts ça vaut rien ubbi ko parce que xel mhm. laa bëgg man su ma ñi may déglu ñu amum xel. man samay wax bëgguma ko sànni bëgguma ko wax ay làppatoo ko am xel laa képp ku amul xel ab làppatoo. moom mooy man li may wax ngeen koy. maam yi làppatoo yi quoi moom moo leen di. waa Sonko yi ko ngeen di rus sagaru nit bi moo leen jàpp ay làppatoo quoi. bu ma wàccee ci yoon ngeen yëkkati ma wala ngeen mbéj ma ne ma di nga duñu teg fii. ay nit laa soxla soxla wu ma ñëw xam ne dañuy pëy pëy yëg mel na ganaar. kon nag bi yow nga changé. ay nit ñooy tabax réew mi réew ay làkkoto du ko tabax. ay ku amul xel du ko jël xelam naan duwee sama. ay présumé violeur man ci yéen dara. il ne ko def ci ndox mi ba wax ba wax di jeex. te ñi may dégg parce que Ousmane Sonko loolu la koy def bés bu nekk day wax ba sonn bu noppee bo jëlé témet bu koy déglu ñaar ñoko ci déglu. parce que ay waxu zéro ndax sa kandang rek lay wax waxu dof rek lay wax ñu non yow yaay dof bi gëm waxi Ousmane Sonko waaw. bu loolu weesoo yaakaar naa léegi kon li may soxla ci nit yu am xel li may wax ci xel duggu na seen bopp yi ba kenn ku ci nekk jamono bi may wax ni daas nga sam xel ba mu ñew kenn ku ci nekk préparé nga manam li nga xam moy li nekk ci sa biir xel mi tey koy jaxase ak yi salte yooyu fexe nga ba yulli ko teg ko fee tàmbali gu mag yi dama bëgg ngeen defal seen xel yeneen ko ba mu set ngeen taxaw déglu ma dofu sonko yi pare ngeen déglu du ngeen ma dégg dama bëgg ngeen dégg ma te xel mooy dégg nopp mooy dégg xel mooy dégg way nopp ab tiwo la rek nopp ab tiwo la boo xam ne ndox mi ki lay jaar xool lim leen jàppe ko xam nga tiwo dina saro quoi di leen expliquer nan lañu teg waaye ndox ci tiwo lay jaar yow mi naan ndox mi ndox mi ci tiwo bi la jaar yow mi koy naan nag xel mooy naan ndox waaye teewoo mooy yàlla loolu ndox seen nopp yi ngeen yore. du ah. dégg nopp du dégg. nopp canal de transmission. Ah. waaye canal de réception canal d' analyse canal de choix. canal boobu mooy xel xel mooy togg. Ah. xel mooy xalaat. xel mooy jëfandikoo xel mooy jël xel mooy dàq. waaye nopp yi moom jàllale kaayu képp la. donc damay wax ngeen dégg rek loolu dégg-dégg la. day ci nopp yi waaye. waaye ñëwal waaye donc soo koy yow yaa leen jox leçon di leen jàngal lu ñuy dégg waaye xam nga ne ñoom torox ngeen waaye bu dee con bi. moom leen soo moo leen ko sant seen i xel. dëgg la jurgóol seen i nopp seen coton ti seen. sekkati seen nopp yi. fet ah. ba ba du fàtt ba li may wax noonu dugg. ngeen ngeen ngeen ngeen yëlandi ko xam ne xam ne bañ juddoo ba léegi mosu ñoo mosu ñoo nettoyé seen nopp <laughs> ngeen yëlandi ko ba mu set ubbi ko ba nga xam ne ndox mi bu ñëwee tuyoo bi du tag ngeen nettoyé seen xol yi ut ko ba seen xel yi. Tounkara déglul bu baax ak ne tontu ah ngay déggee yow waaw. ñuy a tàmbali maa ngi yëg. su ngeen paree ngeen dama pare nañ. non gars yi lay déglu gannaaw yow yaay intellectuel bi ñoom ay dof lañ koy nañ la déglu ñun moom dépassé nañ si level bii ngay waxee beneen niveau lañ nekk ko nañ déglu sa wax dof yooyu wax foo jaar jaar nañ fa ba jàll mais con yi moom vraiment. du ma la clash voilà. presque pare nañu dañ fa am lu xew. al khamis le 16 ki nañ def Ousmane Sonko. déglu leen ko fi nak waxu nit la fi wax touti muy luma leen waxoon mu dem bëkk démb Kër massa taxaw wax ne dañ ko génn ci auto tocc ko yëgëti ko yobbu ah. ko. ngir bëgg mu mucc ci li nga xam moy mooy nervi yi. Uh-huh. wax jooju mu am ci patriote ñu bari ño xam ne ñoo jàpp ne uh-huh. ñoom kon. la ñu jàppoon njëkk bokkul ak li xew mooy dañoo jàppoon ne policiers yi gendarme yi ñoom dañoo bëggoon a ànd ak nerf yi faagaagal Ousmane Sonko ñoom ñëpp ak mm. Macky Sall dañoo ànd kon Ousmane Sonko tey wax na lii ca meeting fiir ba wala boog ci anniversaire ba kon ñoom dañoo juum Euh, agent wu bit bi ak agent wu GIGN bi nga xam ne ñoom ñaar ñoo taxaw ci buntu bi génn Ousmane Sonko ah. ñoom ñi nga xam ne ñenn ñi ëpp ci ñi ànd ak Pastef Ousmane Sonko nekk ci réseau yi ñoom ne nañ ne ngay jéggalu agent yooyu dañoo juum kon ndax lan ci benn waxu Ousmane Sonko boo xam ne ah. dañu koo dégg ah. dañu koo déglu waaye dégguñu ko waaw moom moo tax ma def laaj de principalement lii il faut que ñu leen leeral parce que seen xel yi ak xelu ganaar ñoo yem Ousmane Sonko day communiquer te yéen xamu leen communication information ngeen xam Ousmane Sonko bu. non fii dama war a leeral yéen li leen wax fii moom ay ganaar sax moo leen fi tane quoi parce que Sonko dem na bañ troxal ko Sonko ne ci biir oto bi lam doon wax dégg ngeen ko te moom dañ leen ko wax bien que Sonko la àndal mais lam doon wax dégg nañ ko ku ñëw di la sauver nga xam ne kii moo lay sauver sa bakkat est-ce que diñ fa nekk naal bu ubbi buntu beeg ba ñuy toj sa ay verre. xanaa kay bu ñu la tëjoon fenn sa sauveur yi ñëw ñooñu kay da ngeen war a ubbi sant yàlla waaye da ngaa bañ bañ forcé la yóbbula la ñi nga xam ñoo lay sauvé gannaaw gàcce gi dal na ko nag léegi mu dem ba këram moo tax mu leen soog ko day communiqué li mu leen bëgg a communiqué mooy manipulation yi ma tàmm dem di leen ko def néeg leen ma manipuler leen léegi dama leen di gëmloon ne ñii dañoo ñëwoon di ma sauvé mooy ñu baax ñi ndax dañ ma doon faagaagal te pourtant ca tunnel ba mu doon bañ la ko ñooñ jaaral lëndëm nga muy lëndëm lépp fa lañ ko awale waaw kay yóbbu ko buntu këram comme pizza bu ñuy yóbbu boo ko commandé ci téléphone ñoo ko cëpp gàllam da ko fa teg voilà loolu leen waa ji di jéem a expliqué xam ne ay ngaake ngeen amu leen dégg-dégg boobu Sonko indil na leen manipulation bu yéen ngeen war na ci réseau di manipuler nit ñi leen gëmloo ko ne ah ñii ñoo ñëwoon di ko sauver te ñee seen liggéey lañ def tantôt ke seen commandant doomu avocat bi ne Clédor Ly bi nekkoon ci biir oto bi ànd ak Sonko doomam bi mooy commandant bi waaw mooy commandé gaa yooyu toj verre bi pour te diir que nit ñi lijjantiwun ay kii mooy Ousmane ko ay xoggalikoom ay ngand ngandloom ay gat sa gat saam bu tojee ñu toj gàttam laa la wax ci kanamu àdduna bi yëpp gannaaw gàtt ci googu dal na ko nag il fallait mu réparer ko noo ñii Macky Sall mooy milice nekkoon démb de ñoom tey ji ñooy ay sauveur am loolu leen waa ji nga xamal ne ay ngaake ngeen bien que ñemewuñ koo wax directement mais déglu leen. da ngeen koy jëlee information te xamul xàmmeewu leen information ak communication. Hmm. soo Sonko day communiqué yéen information ngeen yi topp mooy dëgg la wala dëgg. Ah. yéen lu nit mën a wax ci àdduna li ngeen ci xool mooy ndax dëgg la wala dëgg yéen ñaari façon yooyu rek ngeen am ci ci ah. dëgg la dëgg. Ah. loolu képp ngeen ciy xool waaw yéen lépp dëgg la wala dëgg. waaye ñëwal loolu nag. ay koo lu am solo la waaye lu simple la mooy li gën a simple ci ñuy toppee mbir. dëgg la wala dëgg mooy li gën a simple loolu. léeg-léeg ngay topp mbir ba yàgg mbir mi du nekk ay fen mhm. mbir léeg-léeg nga topp mu nekk ci diggante bi du nekk dëgg du nekk fen foofu la foofu la foofu la jafe loolu moo tax loolu la xel a koy lijjanti lu dul dëgg ay ah. day nekk dëgg ngeen tey mu nekk ay fen ngeen nekk ci diggante mhm. a judd nga xam ne fi mu war nekkee góor wala fi mu war a nekkee jigéen mhm. nga ngi ci biir biiru ndeyam mi ngi mi ngi commencé nekk am lumb kenn xamul góor kenn xamul jigéen la foofu yéen seen xel day taxaw foofu yéen mën leen ndax foofu xamagu leen góor la xamagu jigéen yéen a ngi xaar mu nekk góor mu nekk góor mu nekk jigéen. yéen tamu sonko yi def leen soo ngeen jàng foofu def ni def jur yor ak yar. waaw ñaari xaj teg ci nday yor teg càmmoñ. jiital leen ngeen bañ a róor tool yi. waaw lu ko may rek musibaam. mi ngi noonu yéen dofu sonko yi yéen lay waxal. lu ko may musibaam. Uh-huh. kon. Uh-huh. moom sax day tax léeg-léeg bi Ousmane Sonko waxee loolu dafa am ñu bari ñoo xam ne ñoom dañoo jàpp ne. Uh-huh. kon li takk der yi def ci Ousmane Sonko. Uh-huh. loolee kat pour sauver Ousmane Sonko moo taxoon ñu def ko parce que loolu lañ dégg Ousmane Sonko wax ko mais waxi Ousmane Sonko. Uh-huh. Sonko du takk der. Ousmane Sonko nekkul ci état Ousmane Sonko moom la ñu pamti pamtee moom la toj oto moom la ñu bund xataar. ci ji koy sobe. mu doon baax te li Ousmane doon wax keroog ci biir oto bi ñun dégg nañ ko. waaw kay ñëpp ko dégg li mu wax ak commissaire bi dégg nañ ko. ñëpp te li Ousmane Sonko bëggoon xam nañ ko. te mooy dox doxam. Uh-huh. jaar fi mu bëgg jaar. Uh-huh. àgg ñibbi këram ci jàmm ak uh-huh. salaam comme ni mu ko defee woon ci ba muy dem tribunal. ñu gis ñu téye ko. ne ko doo jaar fii fee ngay jaar. baaree yoonam. jaar loo ko fi ko bëgg a jaar foo xam ne fu lëndëm. xam ne dégg nga maam wóorut. am pax la am kàmb muy tunnel boo xam ne jaar fa wóorut moom mu ne du fa jaar ci kaw lay jaar. lépp jaarale ko fu wóorut dina leer dina ko doo fa jaar benn. teg leen seen baaraam foofu. fekk yoon wu leer nañ Mm-hmm. ñu ne ko doo fa jaar ci yoonu lëndëm këris ngay jaar doo dara ko ñu forcé ko jaar ko fa benn mm-hmm. ñaareel bi ñu jaaree foofu mm-hmm. lacrymogène yi tàkk na yéen ñëpp gis ngeen ko ndax ñu ngi doon filmé ñëpp ñu gis ko waaye ba mu demee bay génn pax mi dañ ko téyewaat foofu ne ko doo continuer pax mi la doon bañ ñu ko ci pax mi bay génn pax mi ñu téyewaat ko lu taxoon kon mu jaar ci pax mi par force lay lan mo taxone ñu jaarale ko ci tunnel bi ci pax bi par force na bay waja genn ñu téy auto fofu baare wat ko fa muy ñaareelu arrêt bi ñaareelu barrage do dem bëgg lay jaar du fa mbëgg du tous voilà du ciocio ndax ñu ndax ñu téy wat mom kay pax mi lañ neewon do fa jaar mu jaar fa way ñoko fa jaarale day genn pax mi ñu téy wat auto bi do dem légui da ngay wacc auto bi uh-huh. muy mbir tek leen seen bagam fofu ci auto wacc wacc wacc wacc nañ continuer yeen yeen nga may nañ leen dem sama kër ana borom gàtt sa gàtt ana borom gàtt sa gàtt yi doon rëy lamiñ wër ko. wàccu ma ana ñu da ngay wàcc wàccu da ngay la muy wax yéen a ngi koy dégg moom commissaire bi ba mujj ñu toj oto bi génne ko. way toj vitre yi ci kawam génne ko. waay ñoom ñu ne ñoo ko bëgg a aar ñoom ñoo ko def loolu. ba adduna ah. bi yëpp di ko gis. moom moo ne dañu ko bëgg a aar wàcce ko ci oto ba ah. toj oto ba génne ko def seen oto yàpp yóbbu këram. way donc. may laaj. Uh-huh. ñoom bu fekkente ne dañoo bëgg a aar Ousmane Sonko. Ousmane ko waxal ndax ñu ngi def. loolu la ñu war a def pour aar ko wala. moom moo ko wax. ànd ak moom. topp ci ginnaawam topp ci kanamam topp ci ay peggam ànd mhm. ak moom ndànk ba mu àgg këram. Mhm. def moom li mu bëgg li dal xelam ñu ànd ak moom ca loolee aar ko ci. Mhm. ak li ñu def lan moo ci gënoon. jeex na foofu laay foofu laay yem ak yow soxla moo parce que day gën a gudd sama vidéo donc loolu won nañ ne ko ne fii ñu la wax fi ngay jaar. ñun xooluñu yow fu la neex nga aw fa sa liberté boo génnoon nga dem fu la neex yoonu kenn newu ci mais yoon mi ngeen ñu wax ne da am droit jaar fi yow di circuler dafa am yeneen citoyen sénégalais yoo xam ne sa gaay yi di wax yaa leen gënal seen ndey ak seen bàyyi ñoom xëy na mën nañ la ko nangul waaye dafa am citoyen yoo xam dañoo war di xëy am seenu liggéey joxul Ousmane joxu leen añ joxu leen ndékk joxu leen reer yor seni i bureau di fa liggéey ñi yor seni i di dem di ko ubbi ci di n'importe quoi donc taxawaalo bi lambar lambaram yi au lieu mu dem ñoom xalifa sall dem ci dëkk yi ci àll bi def campagne boko def bir bokk dakar bloqué dëkk bi yep ah kooku dañ koy won ne ordre mo fi am te yow do dara ab citoyen normal nga da ngay respecter li wax sino ñu duggal la ci auto bi yóbbu la ba sa kër nga débarrasser wu ci yoon bi c'est ce qu'ils ont fait donc amul luñ ko fay laaj lan moo la gën nag fan la neex nga jaar faak foofu déedéet dañ ko wan ko ne loi bi da koy respecté comme ñëpp boo ko respecté ni ñu koy defee ñee lañ la koy defee donc dañ ko wàccee ba zéro annulé ko ngand ngand la ak daraja bi yëpp lañ toj dóor ko ci oto bi xool garde corps am yooyu lu ñuy def muut lañ def topp ca gannaaw di filmer la mu wax dégg ngeen ko seen yambaram yi wax na leen ko voilà kon nag xam na ne beneen yoon buñ ko woowee muy procès wu Adji Sarr bu Mame Mbaye Niang ou dana dem wuy jëndànk bu buñ ne koo jaaral fii bu jaar fa parce que c'est la deuxième fois ñu wax ko dégg nga ko mu naan commissaire bi man du wàcc sama oto bi yéeg ci oto xam nga ne kooku mooy ba mu ne leen woon élection du fi am suñ suñu liste bi jàllul élection am na wala amul du ma yéeg wàcc oto bi di yéeg ci beneen oto wàcc na oto bi par force yéeg ci benn wala déet kii mooy lu mu leen wax ay kàcc ci kese la di ngand ngandlu bu caméra yi tàkkee muy jaay gëree di gonfler di ngand ngandlu bu ñu fayee nag boog policier yi day négocier ñii lijjanti wuñ la nee naa leen seen commandant ñoom ñii doomu Clédor moom nga xam ne avocat am la moo nga ca biir mooy seen commandant jox leen ko kooku sama baay demal nga plaider ko sa problème la ñun affaire d'état la réglé. régler du dara c'est un sénégalais comme tout le monde il n'a pas le droit de bloquer un sénégalais qui nga circuler comme moi. Mais may est ñu jambe. voilà seen golo yi nag muy ay tunkar ak na ton bi sagaru nit yi ak tàppet yi gis naa ci benn xaw ma dof bu xaw ma rassemblement la xaw ma fuula ñoom ñëpp ñu toog fii di yuuxu ay Mollah Morgun dem leen ray seen bopp dem leen wala sànni xeer da ngeen war a dem attaquer directement ay doomeram yu nekk ca àll ba ñoom ñooy ñëw di leen commander yéen doomu jàmbur yi nekk fii ah seen sagaru nit bi xaw ma président groupe WhatsApp yor ay doomam ci këram ay soxnaam ñuy jur ay doomam mu leen di yar ñuy màgg léegi yeneen yaay yi ñoom ñooy si doom dee ñuy juraat lu tax moom mi rayul yóbbu ay doomam ñu dee jabaram yooyu di ay xale ñu juraat yeneen bu boobaa la ñuy xam ne géree la Khadim Gueye Tébel Sirdu boo ci bindoon na nga ko def ah yar ak teggin waaw ñu dëgg lañ leen tegal leen wax right kum neex baax na kum naqari sa problème la voilà quant à affaire bi Adji Sarr nag moom dana wuy ji par force parce que seen recours boobu ñu defoon sote na waaw bu demul wuy ji dañuy jëw ndànk ne ko ci yeex ci kër gi yeew ko bu mu dëgër Sénégal yëpp di gis li jëntuñ li ñuy wax ci ay réseaux sociaux goloom yi ne fi di yuuxoog di jooyeeg di préparer ay guerre ak ngeen xamul palais ba mu leen wax da fay dem na jitu ci palais ba doon ko fa gis doon fa gis mbokam doon fa gis kenn te ku ci tepp naan da ngay jëm wuti palais wacce la leen def ndang nga de ñu fàttale ko 14 personnes yooyu peace and love jere ngeen jëf fi ci Dark Hedge di leen nuyu di leen ziar ok bu ngeen di jité ay xex da ngeen di bayyi fa ngeen nekk ngeen jël billet avion ngeen ñew jité ko jitu ci kanam lool mo mu yufu gor sino bu ngeen amé rasu bu leen ne ci alba di yabal doomu jaambur ñu nekk fi ñu dem ray seen bop pour ngeen am ay vues dindi leen yooyu amul njariñ amul baaxul santul yàlla xale yi yawu leen xale yi yawu leen sagaru nit boobu ay jabaram ak ay doomam ñu ca këram bu ngeen dem di xeexi ma nga di wutal heure bu ñu jàng dañu am cours à dix heures doom yooyu gënuñu seen i doom seen i ndey dañoo sonn ci yéen seen i baay sonn ci moom mii taxaw na ñàkk jom a tax mu waxoon loolu ëllëg tey ji mu ñëw di leen woo ci mbedd bi bu doon ko am jom la bu ngeen koy def sax moo leen ci war a génne jàmm ak salaam jërë ngeen def